intellectuel ci géej bi te laaluma sax baag bi fan ñi ma jege yore jëmi nit das seeni bañ di ma jëm a sàkku moo man maay dabi jëmmal ji ne tax dëm bu ma gis rek banku ni nga sama jëm ju ndaw yelloo na ngërëm même bu la musu baaxee ba may or yaa ngi ma lay sib di réemé yaa ngi fees xar sànni yàpp ah. sa juddu dafa xaram level bi nga far sa jaar sa taat di la baram ah. kon jàmm ma ni indoo ki xaram daga maara ki saram ndax ñàkk jom bu doon tey wama ni nga yaay doon faram tey to sa sarab ni nga ma rab avec frappe demu keru sax sunu garab yu jeex seeni jeefi siis nday ci ndab li day nga sim ni sama timay king ci gab li ma doon gay ne nga doon bay a xiin fa nga taw li day ma gat sama talan boobu yaa ngi ci sa paf gis motu moom xëy nga de sama ginnaaw sama kanam fa nga doon géej alam naa sa xërëb matt yoo yëngalul ñey wu ma taal cause bi di koy musa fay même jëbal ma lu ma wax mat sa vie du ma musa dee man si seen i boy succès bi sunu dindi la ci liste bi kenn du la maay sax ci seen xeet seen fi jeel li nga gën a bëgg meen sama poubelle may dam seen eel juta def geel ne nga gembi doo ci fëkk doo ci sax feel am am am amoon niveau ci bi géem delu sey ngir nga jéem jàngi AOI du même dara bi ci sunu game ni nga toppoo ci bu doon coob la amu appétit liggéey bi ni jëm kanam jàppoo kaw bi bi di tâtonné taluma zalone jab bi di jomale folo bi jongale xamuma jégale rend di jàllale def la ñoom ñëpp ci cabinet dama joggat ci sama ne moo fay ma gaalone moo fi yëpp abonné yàgga bégal ma gagone xeta yi étonné nam baa ngi cartonné ñu ñoo moome garab kenn du fi njoowaano e eh, budul PNB sa kaw kenn du fi sabbaalu bi kaa ñu tâtonné waa yes bii la waaw. fàlle ma dund gis ba Dominique Pera. ne dinga dund firnde pito fi pare na yewol ma bandi aksi na dewa sa tam niga armew na mën rab bëri jëm ne fa sot sot tot tot top mama la bàyyi rab ibi tàngaana dama leen naan besa sangara dama nekk en ho nekk en ba may kil alsan waatara ma dem wane sama folo wane sama talent di la weet sama seex ne ma yow pito ak ram da kontaan nga yore sama dogeli tànkal ma may rab duma tel niga cantal men ha di tegg di mbëkk di rend di jéggi di romb di fàtte jàpp ma rek luus bi joo dama bëgg nga dàkk ma sama noonu bu leen ma bàyyi man yéen a tax ma bëgg gën a di ñafe man ñi ma bëgg def nañ ma sama doppa jiitu na iliman sama raba tege na fatiha mbir na mu taaru na yenenti yusufa ñoo ko dàkk nga dëkke di sa koñ laa di dugg di jaxase mënoo ko di jéem di kami di suul ah kituma ko tabase seen la bela suux boyisi di xuur périmé na jaaykatu dargase seen kereer lay ramassé andale yéen jaboo leen da di dekkale di xuppe di dekkale di dekkale jël xuppi seen bët di ma xool seen maaf laay call crazy seen move la ñu dër de François ak Sarkozy dama dëkk anyway di leen coob dama amee seen appétit bu ma namee sambo ci mais plutôt romb naa pankal yi dama ko mëne di segg ne teme bindu mu kawe na pale PNB c'est des jumeaux qui nous viennent de Thiès salaamaaleykum les garçons ma <laughs> naka mu jage si leen mbaa lépp jàmm. oui sant. naka waat. waay sant ko kan mooy P kan mooy B. oui c'est P l'autre c'est B. Ah, P and B. oui yes naka affaire yi. oui sant mbaa lépp jàmm. vous êtes dans le hip hop et ngeen dëkk ci Thiès jagleel micro bon ñu ngi dëkk Kawsara Medina Fall. Kawsara Medina Fall. oui Medina Fall du foofu la amul benn sëriñ murid bu fa dëkk. Euh, bon non du foofu. kon du foofu kon bari na bari na na ah naka mu euh, ça dans le hip hop là. bon ça fait presque six six mois en même temps six mois six que vous avez décidé euh, qu'est-ce que vous faisiez avant. Euh, nous sommes des élèves. Hein. vous êtes des élèves. oui classe ngeen bon première. terminale première ak terminale. waaw à la rentrée. non terminale je déjà fait. ah ana non bac bi nag mujjul ñëw yàlla. mujjul ñëw de ah <laughs> waaw mais dara dañ koy dóoraat rek. am benn problème comme ni ak terminal. alors euh, lan mooy bii bii yaa sama rab de sama rab de. ah sa rab bokkul ak rabu gars yi. <laughs> dama nekk en ngeen nekk en bas mooy Thiel na Alassane Ouattara. Ah. waaw dañu nekk ci kaw quoi. gars yi nekk ci en fait waaw man. commencé naa rap en 2013 parce que dama ko commencé bon ak beneen crew yes ci laa nekkoon en même temps nekk nekk après ñu mujj mhm. bon ci la ñëw ak sama jumeau. Mhm. après ñu commencé rap. ok ok mais man en 2013 laa commencé rap. Ah. Euh, vous êtes des élèves euh, et vous êtes des artistes. oui euh, comment est-ce qu'on vous regarde à l'école avec les coiffures le style et tout. <laughs> bon fois nag xam dafay xaw a métti quoi part parce que tamit préjugés yi day ñëw. xam nga ah, ah. devant les professeurs ak ñeneen ak ñeneen. Ah. bien que duñ la xam quoi buñ la gisee ne rek xam nga yor style rappeur. dañuy yaakaar ne xam nga bokkoo ci élèves yi nga xamante ni. jàng bi da leen a motiver wala dara da nga am leneen ci bopp alors que demeewul noonu lii dañ ko def mu doon suñu passion. parce que dañ ko bëgg quoi. loo xamante ni dañ koy dund la. en dehors de l' école. noonu la fa demee quoi mais. amuñu benn problème ak kenn école. Ah, lépp chill. ça va ça se <laughs> passe bien. si si euh, euh, alors dites-moi un peu euh, en termes de spectacle. vous vous vous faites beaucoup de spectacles dans les écoles et tout. oui presque maanaam ren. macha allah quoi am na foo xam ne presté nañ fu bari ci école yi même temps ci concert yi en temps tamit def nañ ci ay ay sortie bi tamit dañ ko defaloon benn événement. Hmm. le 23 juillet mu tombé suñu jour birthday. Hmm. moo doon sortie officielle bi. Ah. bëggoon nañ sax euh, jour boobu mu daw mais xam nga amuñu woon benn lien bi. moo taxoon ok mais pas mal quoi pas mal dox nañ ay. concert yu bari ça c'est ça c'est ah. moo réalisé vidéo bi exactement. oui c'est Blue Motion quoi. Blue Motion Pix. Blue Motion Thiès ah, la nekk. ah Thiès la nekk. ah dafa ba temps yi yi dañuy génn comme comme comme comme comme nu comme champignon. waaw artistes yi dañuy génn lu bari. mais pourquoi pas pourquoi pas mais nu mu <laughs> tamit ay ay ay kii ñoo fa nekk ay ay intellectuel ñoo fa nekk. Uh-huh. tamit Thiès bari na. idi fa la dëkk. Uh-huh. yaa ngi dégg ci sama sama maanaam Wade ak Macky ana yëfi idi. Uh-huh. maanaam Wade ak Macky mais idi faa mu jël réew mi kon donc ñun faa pourquoi pas nous sommes les flambeaux de Thiès. dañu ñëw diigee pour wane suñu bopp. Ah. parce que rap kenn moomu ko quoi. kenn moomu ko te tamit ah. am nañ foo xam ne visé nañ te incha allah dinañ fa yegg tamit di profité di wax ci seen petit gallé pour dimanche de demain. Ah. incha allah. tamit di rafetlu li ñuy def cadre bu rafet bu nice tamit te bëgg nañ xama suba du ñu ñibbi quoi yow je compte sur vous. Uh-huh. pour suba ñu def benn prestation nga xam le xama uh-huh. jumeaux yi ñu xam le jumeaux yi les grands théâtres uh-huh. yow laay yow laay yow laay xaar quoi. ñu dem grand théâtre ok dañuy dem grand théâtre suba incha allah grand théâtre seen petit incha allah amul ragal dañuy jeew rek Famara rek incha allah ñu xool nu muy demee. Eh, dites-moi un peu. Euh, lii mooy seen identité ah la nuróowaale la. waaye identité bi parce que tamit mënuñu ni jumeau ba pare xam nga dégg tamit di wane leneen loo xamante ni bokkul ak jumeau. Ah. il va falloir tamit nit ñi kat bu ñu la gisee rek. seen xel war a man a dem ci jumeau quoi. Ah. warul doon loo xamante ni dañuy toog naan ay jumeau lan ah. mais nit ñi dañ ko war a dama am yeneen jumeau dama am PNB. am PNG. voilà sama gars yi xam ngeen <laughs> voilà parce que loolu tamit indi na benn benn benn pax bu ndaw quoi. Uh-huh. parce que gars yi dañoo yaakaar ne ñun danu copier ci ñooñu alors que demeewul noonu P comme Pito. Uh-huh. bi comme Bamba xam nga mënuma ni P and bar. Uh-huh. parce que ça ne rime pas. c' est pourquoi mu doon P and B. pour que kat mu xaw a. adéquat quoi dans ok noonu la fa demee. ok eh, mais foog ma présenter leen sama booyee ah. waaw <laughs> parce que ñoom samay boy lañ. si ngeen mën def ay affaires ensemble. oui incha allah incha allah restez un instant avec nous euh, un hommage mérité à monsieur euh, c'est bien ça. Massamba le grand Mass. alors euh, professeur euh, à qui euh, on va rendre hommage le prochain au Grand Théâtre euh, à la place du souvenir c'est bien ça. Sarar Sow naka maa ngi fi Boubsou. mbaa yaa ngi ci jàmm. Euh, et vous c'est comment. Matar Ndong. Matar Ndong Sakhar Sow et Matar Ndong alors euh, c'est vous euh, qui avez pris l'initiative d'organiser euh, pour rendre hommage à, mon professeur. oui. en fait c'est une association. c'est Massamba Miroir Club MMC. Massamba Miroir Club Miroir Club. en fait c'est une mm une nouvelle association qui vient de naître récemment le 7 mhm. avril dernier donc composée par des jeunes des jeunes qui sont engagés dans la culture tout autant que monsieur Massamba Gueye Donc euh, l'association a pour but, l'objectif de l'association c'est justement euh, de faire valoir la culture sénégalaise, la culture africaine de manière générale. Mm -hmm. Donc Massamba Miroir Club a mhm. beaucoup de commissions à l'intérieur, c'est pas seulement la commission culturelle qui nous intéresse, mais mhm. aussi le développement du Sénégal avec les, les, les actions sociales et tout la solidarité. Nous prenons tout en compte euh, dans notre association. Donc Massamba Miroir Club est une, euh, nouvelle association qui mhm. les jeunes mm -hmm. qui la culture culture sénégalaise, de la culture africaine, d'être garant, de défendre cette culture. Parce qu'on voit euh, dans, dans, la société où nous vivons une certaine dégradation de la culture. Donc mmh. nous sommes engagés à porter le combat mhm. de, du grand Massamba Gueye, donc euh, dans une plus grande échelle. Mmh. C'est ça. Alors, euh, Sarah, dites-moi un euh, que le 13 euh, avant tout, il faut euh, que je dise ces mots de du docteur Massamba Gueye oui. que la parole de trois choses. Mm-hmm. Dis-moi Euh, de les dire, la dire quand il ne faut pas la dire, mmh. de la dire à qui ne faut pas la dire, mmh. de la dire là où il ne faut pas la dire. Mm-hmm. Alors au moins où les uns et les autres auront à dire, nous, nous allons faire et c'est ce qui fait notre affaire. Ce qui nous a amené ici aujourd'hui, c'est euh, la journée de lancement de Massamba Miroir Club mm-hmm. qui aura lieu le 13 août, Inch'Allah, à la place du souvenir. Mm-hmm. Donc comme l'a si bien dit Matar c'est euh, une association qui prône pour la culture, le social, la solidarité, mais aussi de montrer euh, ces artistes qui sont sous l'ombre. On va parler euh, de Abdoulaye Seydi, mm -hmm. peintre en situation de handicap. Mm -hmm. Donc il va faire le vernissage. Mm -hmm. Donc on a comme programme présentation de Massamba Miroir Club. Okay. Parce que ça sera notre première sortie. Il y aura un panel Oui, euh, il y aura un panel euh, sur un thème mmh. qui est le rôle des industries culturelles mmh. pour le, dans le développement du Sénégal. OK. Euh, donc les panélistes, c'est le docteur Massamba Gueye, mmh. docteur, euh, le professeur Laman Bey, et Monsieur Pafay et tant d'autres. Et tant d'autres. Deux grands noms de la culture. Alors, euh, vous parlez de euh, vernissage et puis de vente aux enchères. C'est pour déjà euh, avoir quelques fonds euh, Oui, mais aussi tout ce que nous aurons euh, de cette journée, nous voulons le partager avec les prisonniers. Les prisonniers Oui. Euh, D'accord, c'est très intéressant. Euh, votre démarche est salutaire, votre démarche est à saluer. Euh, nous vous encourageons vivement. Donc rendez-vous est pris le 13... Le 13 août, Inch'Allah. Lancement que... de l'association Miroir, mm, club Massamba, de Miroir Massamba Gay. Exactement. N'est-ce pas Parce que durant le ramadan, on a euh, fait des ndogou si taalibe yi ak ñëpp. donc bëgg nañ tamit final bi ñu def lu ñu am ci jour bi ñu boole ko ak bokk ko ak handicapé yi ak prisonniers yi euh, ndax loolu moo ñu tax jug jóg. vous dans le social. nous sommes dans le social nous sommes dans le tout. <laughs> parce que la culture fi mu toll léegi c' est une pilule de folklore mais source de développement la et des jeunes dynamiques rigoureux. li gëm loolu euh, ñoo war a taxawal loolu pour nekk ci donc y aussi des prestations artistiques y à la fin une cour royale pour ñuy wane à peu près li fi nekkoon démb ba tey mi ngi fi mais tradi moderne. tradi moderne en tout cas je retiendrai que la culture euh, doit être euh, justement pour euh, développer. Euh, le pays, développer nos activités, développer mm -hmm. tout ce que nous faisons. En tout cas, docteur Massamba Gueye l'a merveilleusement bien compris avec la culture. Il voyage à travers le monde. Avec la culture, il travaille. Avec la culture et la parole, il travaille merveilleusement bien. Euh, merci beaucoup. Alors, les jumeaux, c'est quoi le prochain projet, à part le, la vidéo qui vient de sortir Euh, ci nekk ci beneen vidéo pour ko kat xam nga fi mu toll dañoo toll ci maanaam wane ñi ñu doon quoi wane ñun ñooy kan. ba pare ñan. voilà <laughs> wane ñun ñooy kan jaay voilà. wan gars yi ñoom non même pas ma foofu sax. <laughs> wala wala boog <laughs> dañoo bëgg jaay maanaam suñu image ba pare. yéen a moo ëpp solo. tey ngay génn ay sound di sànni. xam nga alors que kenn xamagu la. nit duñ la mën a déglu. dëgg la dafa falloir nga jaay sa image ba pare ba nit ñi xam yaay kan. bu ko defee nga mën wax ñu déglu la. incha allah ci loolu lañ toll. neex na d'être passé comme disait Kassé Sikimu Nana neex na merci beaucoup euh, Sarax mais dégg nga gel bi mu tudd <laughs> Sarax Sow. Eh. Sarax Sow sama turandoo mooy <laughs> benn problème man waxuma ak sa turandoo yow laay waxal sarax soow non soow pour la ardo mooy sarax soow booy bul dof noo tudd sarax soow waaw oh, ñu ngi def euh, un big up à notre papa docteur référence et idole le docteur Massamba Gueye parce que lépp moom la buñ jugee tey pour wax ci culture oui ma docteur Massamba Gueye sa référence munul doon sa référence sama référence la toogal may ma si waaw gaawal voilà dañu dañu bëggoon sant rek ay kàddu yu sant yu ndaw parce que dañu bokk ci benn mbër de non booy bu fi def affaire mbër. PNB bi from BSD. ñun ñu ngi jógee BSD. kon mooy BSD BSD mooy ñun ñuy ànd. Ah. waaw léegi gaaw booy bu def affaire mbër la gaaw. <laughs> Ah. ñu ngi bigga waa ah. ñun ñoom ñoo waral lii quoi ñun bu ñu demee tey ba am fi taxaw fenn ñoom la. di bigga tamit suñ fans club bi PNB Boy and Girl. waaw ñoom tamit xam nga ñu ngi def job bu nice fële Thiès. di bëgg waa Mina Fall yëpp. waa Kawsara Henri tamit ñëpp Thiès. góor a gars yi ñu ngi leen di bëggee. booy yaa ngi def affaire mbër bàyyi mu sedd ñu ngi booy wuy ma PNP affaire mbër du ko nangu. maa ngi gannaaw bu ma gërëmee julee si Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam maa ngi gërëm sama ndey ak sama baay sama papa Pa Diallo maa ngi koy gërëm sama yaay Fat Konte maa ngi koy gërëm di gërëm bu baax a baax sama rakk Daba Diallo mooy togg togg yu neexi di gërëm bu baax a baax sama baax a baax Fatima di gërëm a baax a baax a baax di gërëm bu baax a baax a baax sama waa koñ mère Anta Faye sama mère la di gërëm bu baax a baax a baax kooku nga xam ni moom moo di moomal sama safar moomay dawalal di gërëmoon Mbaye Fall di gërëm Zap Zap nga xam ni bu ñu lekk fonde booy tegal ma futti ciao